Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. mbokk téléspectateurs yi ñu ngi am mbégte ak contentement di addu ngeen di teewlu ci seen télévision Equivox TV di leen wax ni daleen ak jàmm ci seen émission Vox Arena tey nag Vox Arena daal di ñëw c'était même pas prévu ñu daal di ñëw tey euh, daal di def émission waaye lu yëngu lu ne lu ko yëngal a ko ëpp doole. alors comme ni ngeen ko gisee ni ngeen ko yeewaale gis ko ci journaux yi mu am combat bu ama am solo bu taxaw combat bu neex muy diggante Tyson euh, Tyson 2 bu Taïchinga ak ki nga xamante ne moom mooy Franc bu écurie parcelle mbooloo foofu ca parcelle bokk ci 100 pour cent parcelle combat de feu boobu noonu nag moom moo taxaw moo tax ñu daw si daal di leen indil information boobu mais fas yéene ci waxtaan tuuti ak yéen combat boobu nag. Euh, Vox Arena ñoom ñoo ko taxawal Vox Arena nag di seen émission bi nga xamante ne moom ngeen tàmm di gis di ko gis nag muy yëngu ci wàllum làmb di leen indil ay émission yu ama am solo waaye di leen indil ay reportage yu ama am solo Vox émission Vox Arena boobu nag mbokk yi moom la ñu labellisé muy tëgg ay làmb ñu nekkoon nag ci ay affiche yu baree bari yenn yi di waaj a taxaw bi ci taxaw nag moom mooy Tyson numéro 2 ak Franc mu war a nekk combat boo xamante ni déwén la jëm mu nekk euh, mbokk yi combat bu ama am solo Vox Arena nag mbokk yi eh, di waajal ay événement yu mag a mag bu soobee yàlla ñu ngi waxtaan ak ay mbër yu baree bari ak i seen i ay manager hmm? danañu ñëw léegi léegi ci li ñu fas yéene def déwén ci làmb mbokk yi dama bëgg a ànd ak yéen daal di leen won li nga xamante ne moom mooy signature contrat bi dox ci diggante manager yi ak promoteur bi et ki nga xamante ne nag moom moo fi représenté woon franc moom mooy Mortala Diouf représenté Assise mi nga xamante ne moom mooy manageru franc mais comme Assise dafa voyagé tuuti et mu mandaté ki nga xamante ne moom mooy Mortala Diouf mu représenté ko moom it mu daal di jël avance am euh, de même que ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 Ibnou Diop sunu papa moom moo ko représenté moom it mu daal di jot avance am ñu dem xool lool mbokk yi daal di dellu si waat Equivox group euh, benn groupe la de jeunes boo xam ne en fait euh, dañuy évoluer ci domaine communication voilà donc ñu am benn euh, label Vox Arena boo xam ne day évoluer ci domaine làmb yàlla dimbala ñu nag en peut-être quelques années d'existence je dirais même une année et demie d'existence on a pu quand même avoir une visibilité ci axlu làmb donc loolu nag moo ñu poussé à que ñu def benn réflexion nga xam ne dinañu permettre ñu verser dans l' événementiel kii di événementiel day xalaat làmb mu nekk suñu sport national voilà donc loolu moo ñu indi tey ñu euh, choisir aussi xale bu mel ne Franc ñu xam ne mbooloo mu ngi ci am wala ñu boole ko ak Tyson 2 ay waaw ñu ngi lay ger waaw di la bëggee bu baax a baax yow it waaw di kontaan bu baax si Equivox groupe waaw bi nga xam ne tey moo nu fi dajale waaw fas yéene signé benn contrat de lutte entre Franc ak euh, Tyson 2. waaw man nag ma fi représenté fi ACC muy ménagère Franc mu yebal ma pour ma signer ko contrat bi parce que actuellement dafa voyagé daal. waaw looloo nu fi dajale mais ñu ngi kontaan bu baax si dajaloo bi ak contrat bi nu war a signé waaw en fait Tyson 2 champion la comme champion yëpp te làmb nag ah, daanaka soo bëggee yegg fi nga war a yegg amoo looy éviter waaw lépp loo xam ne mu tàng wala mu sedd da nga war a soobu te tamit euh, Tyson 2 mbër munu euh, naw la parce que wane na fi dara si làmb wane ay preuve kon France su prouvé ba war a bëre Tyson 2 rek waaw dañuy comme ni ñu daan def rek waajalaat nekkaat si même rythme jéem a ñëw confirmer quoi loolu moo nu dugal si Tyson waa di ñaan yàlla nag am si ndam quoi. waaw l'essentiel bi mooy euh, loolu yëpp source source de motivation lay nekk. parce que tamit Tyson 2 dugg na ñaari yoon parcelle am fa ñaari yoon ndam kon ça veut ne yen bi day gën a diis te loolu yëpp dañ ko war a bërewaale parce que. ku xam góor soo xam ne doomu nday franc la ku xam gargi day xam ne doomu nday franc la kon yooyu yëpp day jouale day amaale benn pënc si biir combat bi ça veut dire ne du nekk làmb joo xam ne dañ koy jàppee lu yomb wala lu oyof dañ koy préparer au sérieux si domaine yëpp nag ah jéem si dugg suñu borom suturaal nu si may may nu si ndam parce que xam nañ liñ jël carrément nekkul tamit lu facile Tyson 2 ku ko xam ne xam ne du adversaire bu facile adversaire boo xam ne làmb da koo jox cër amateur yi jox ko cër Franc nekk xale di ñëw waaw dañuy ñaan yàlla rek mu yeggale yeggaleeg jàmm ko waaw message bi ni lancé mooy comme ni ñu defoon rek parce que Franc mu ngi si lancé actuellement am foo xam ne parcelle dañ ko ko yaakaaree teg ko fa tamit waa dañuy confirmer rek li nu liggéeyoon digganteem ak bébé Saloum dañuy ñëw confirmer waat loolu. muy si côté mobilisation si côté entraînement si côté domaine yëpp dañ si war a ñëw confirmer suñu borom may nu si ndam parce que tamit lu ñu a wax lu ne Franc am na fu mu teg bëtam mais fu mu teg bëtam munu faa yegg tant que li ne si kanamam effacé wu ko ba pare moo tax si domaine yëpp dañuy jël atu yëpp def ko suñu côté préparer combat bi nu mu waree si domaine yëpp waa di si ñaan ndam rek ok waaw di gërëmaat tamit euh, Equivox groupe parce que tamit ñoom ñu ngi doog a door ñëw si làmb da leen ñaanal li nu sumb suñu borom def si réussite teg si loxo waa ñu euh, am si lu kawe seen jot ba nu gën a ñeme làmb ji ba nu gën a ñeme investir si làmb parce que tamit ay jeunes lañ di waaw yoo xam ne pare nañ pour innover pare tamit pour indi seen tuus si làmb dañ leen di ñaanal ñu am si réussite totale liñ si luñ si jublu rek suñu borom kàttanal leen ñu am si lu kawe seen jot daal ma laajte euh, suñu papa Ibou Diop représenté euh, mu représenté Tyson Tyson numéro 2 moo war a jàkkaarloo Franc père maa ngi lay siyaar. papa euh, ñu gis ni Tyson 2 combat bi nga xamante ne ñu ngi koy wut moom ak Franc yàlla def na ci jàmm nan nga gisee loolu. ah waaw li ma ko gisee mooy combat bu neex la. Mhm. parce que déjà ñaari xale yu dem leen. Mhm. te gis naa ne vraiment ñoom ñaar ku ne da nga def mm-hmm. ba agsi fi nga agsi. Mm-hmm. waaw xam naa peut être euh, yéen yéen la euh, yàlla jox chance ngeen am combat bi. Mm-hmm. parce que combat la boo xam ne xam na ñëpp a ko bëgg. waaw euh, rek comme ni ko waxee yéen la jox ñu tëbu parce maa ngi leen di wax bonne chance bon ñu ñaan yàlla aussi Euh, est-ce que wóor na jël Franc fu mu toll nii xale boo xamante ni mu ngi ci yoon doy waar lool ak doole gaaw mun bëre est-ce que wóor na. ah waaw ah, wóor na parce que làmb la rek. làmb la comme làmb yëpp. parce que am na jamono comme bi ñun li ñuy dajeeg góor a soog. ñu bëri dañ wax góor a moo ñu mën nangam nangam. waaw gis nga bañ demee ci làmb ji seen demee. Mhm. daje nañ fekk ñeneen comme ñu mel ne ay assurance. Mhm. parce que loolu franc bu mu code kii wu assurance la. Mhm. boo xam assurance. assurance bu nguur voilà ñoom ay ñoom catégorie la ñu. mu nekk mbabatkat bu mag. ba ñu demee gis ngeen ni ñu ko def. Mhm. waaw ñu yàlla daal lu mel noonu direct. mais tàmm ngeen dugg parcelle saa yu leen duggee parcelle dafa mel ni yàlla leen di may ndam tàmm ngeen dugg parcelle de. ah waaw ñun parcelle ak feneen lañ ci yemale de. ah essentiel ñun dañuy dañuy entraîner rek entraîner wuñ pour parcelle entraîner wuñ pour feneen. ah waaw mais <laughs> ñaan yàlla rek ak si bés ba jàmm loolu laa koy wax. mais doo wax dara as. non sama sama sama waay mais bu combat bi taxawee ah as sama waay la. mais doo daal nax sax sur xol ko affaire yooyu noonu jaago xelu mag. ah euh. mbokk yi li nga xamante ne moom moo euh, ci diggante manager yi ak promoteur yi combat bi daal di officiel. mu war a dox ci diggante Franc ak Tyson de seen manager yi jël nañu avance daal di dem ñaari mbër yi di waajal et danañu delluwaat ndaayaan mbokk yi incha allahu rabbi daal di leen indi réaction ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 gannaaw bi combat bi taxawee nan la ko gisee ah, ak lan moo tax mu jël ki nga xamante ne moom mooy Franc yooyu yëpp ay question la yoo xamante ne incha allah bu ñu jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 de ñu yaatal. également danañu dem ba fi nga xamante ne moom mooy parcelle indil leen réaction ki nga xamante ne moom mooy franc gannaaw bi nga xamante ne combat bi taxaw na moom it mu daal di ñu daal di am ak moom waxtaan bu am am solo xaar leen aussi mbokk yi à chaud mooy réaction wu promoteur bi promoteur bi fas yéene nañu euh, seeti ji promoteur bi mu daal di ñu wax lan la fas yéene def ci li nga xamante ne moom mooy wàllum làmb mu daal di ñu décliner un peu de route am incha allah waaye mbokk yi xaar leen li nga xamante ne. moom mooy ay événement yoo ama am solo yu leen Vox Arena fas yéene indil daañu ñëw ci ay innovation yu ama am solo ci façon bi nga xamante ne ñun it xalaat nañ ko ci façon bu ñu mën a def bu war a fas yokk làmb bu soobee yàlla mbokk yi di ngeen ci gis lu ama am solo lu yaatoo yaatu di leen di wax rek ni ñu ngi leen di tàllalaat loxo bu baax a baax a baax ngeen yokk ñaan yi ngeen gën a jàpp ci li nga xamante ne moom mooy euh, Equivox euh, groupe mais ngeen gën a jàpp ci Vox Arena ñu ànd ak yéen daal di leen indil li gën a neex mais lu gën a authentique ci wàllum làmb mbokk yi di leen jox di daje très ci beneen numéro Vox mm. Arena mm. peace. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer la pouce bleue pour liker.